xaal ba amul mais fi nga taxaw amoo nañ ko sax amoo tiraay amoo dara xale yi nee nañ de sa dox sool sa xol xoolal xam na ngay def xam na ngay def ndax su dee léegi nag yaa kon keneen da lay remonté dañ ko bàyyi non am na ku la war a remonté déclassé sinon soo ko déclassé da ngay si day demaat si dara. Ele gradis, ele gradis. Thank you. li ngay xam lan man c' est l' exemple par l' euh, expérience par l' exemple moom lañ dund fii tey maa ngi fii euh, oto bi ma duggoon am problème di tàgg waat bi ñuy ñëwee en deux temps trois mois wax ñeneen ñi nga xam ñoo toppoon ci ñun donc gis naa ni daal lii boobu yàlla na sëriñ bi fayal leen boppam et puis c' est une très bonne initiative état bi war na ci dugal loxoom ñeneen ñëpp war nañ ci dugal seen loxo di leen jàppale parce que ils sont là pour le Sénégal ils sont là pour les Sénégalais. alhamdulilah rabbil alamin di sant maanaam ki waral bis bi muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul nga xam ne daanaka sax li yëpp moo ko waral boo demee maanaam boo xoolee maanaam fi mu ne économie Sénégal donte métti na ñu ngi si jamonoy corona mais ba màggal bi ñëwee ba tey maanaam économie day gën a yokk kon nit ñëpp dañoo bëgg dem Touba waaw fan yoon maanaam day gën a économie bi dafa gën a jëm kanam te loolu lépp borom bis bi moo ko waral yéen itam ñu ngi leen sant bu baax da ngeen def ni yombul ngeen jël seen i xam-xam seen i ñàkk di ko def ci nit ñi loolu yombul ñu leen di sant baax a baax nag xam ne lii yàlla na suñu borom fay moom mi nga xam ne mooy borom fay ki mën fay ñëpp yàlla na leen fay soxla waaw te fan li ngeen bëgg seen kenn kii daal seen xol yi sms yàlla na suñu borom gën a yokk di tam rek ci patron ba si gardien bi yàlla na lépp yàlla na a yokk waaw si barke borom bis bi di sëriñ ci waxee mu sëw wala la leen sant baax a baax jërëjëf mais da nga koy raay rek comme tàmbul jën. waaw tàmbul jën voilà raay ko ndànk rek. raay ma raay ko macha allah yal na la yàlla fay si barke sëñ Tuubaa ilaa Touba rek yàlla na yàlla fay seen liggéey. jaamu yàlla bu mag la jaamu yàlla bu mag la yàlla na yàlla fay ngeen yàgg kaa fekk ci kàttan yàlla yàlla na yàlla yokk ba ngeen yëpp. waaw waaw waaw

yaakaaruñu ko parce que amuñu woon crédit amuñu woon dara amuñu claro amuñu woon dara vraiment taxaw nañu woon waaw ñoo doon ñoo doon ñoom ñoom adresse moom ba dëgg yàlla moom affaire yi moom dina ñaaw trop bu baax moom prix moom fi lañ koy basé moom macha allah kontaan nañu moom macha allah macha allah waaw ñun dañoo dañoo crevé rek même pas quelques minutes ñu gis leen quoi macha allah moom xam naa xam naa ne fii ba yoonu tubaab bi ñu ko jàppale am nañ seen am nañ seen fay quoi macha allah macha allah kontaan nañ trop A2MS ah. merci beaucoup jaajëf jaajëf. jàmbaar rek doon jàmbaar dëgg sax a ngi gis que naroon naa ko daal ca kaw ca kanam rek moo am seen fay daal parce que tamit lii nii yomb quoi jël sa projet bi ndax dañoo faal ci yoon bi jaaxle trop ngeen ñëw dimbali kontaan nañ trop ci yéen yal na leen yàlla fay yal na leen borom màggal gi fay dara see seen i naam xam ne jërëjëf. ñaanal yàlla ñaanal yokk leen tey yéen a fi daal jàppale ko macha allah yal leen borom màggal gi fay barke Sidina Muhammad.

ñaanal la rek moo man parce que yàgg nañ fi yàgg di arrêté oto sax pour mu jëm ñoo waaye bi ñu leen gisee rek suñu xol dafa sedd kon nag yàlla yàlla fay leen defal leen xéwal yu bëree bëri bëri màggal gi ñu jëm luñ ko am ci ay xéwal yàlla nañ ko bokk barke sëñ Touba suñu xol sedd na buy yéen moom wax dëgg yàlla mention spéciale yéen moom lii ngeen di def wax dëgg yàlla lii rek moo war a am am solo waa la ñuy defaral محمد يا إلهي بمحمد على المنتقى خير الملائكة mais nag dañ leen yàlla fay barke borom màggal gi waaw li ngeen bëgg bi fii seen liggéey ñoo xam ne digaag bi defal ko vraiment man moom xam naa bu baax a digaag kontaan naa bu baax a baax parce que maa ngi jaaxle moo nekk édition boo xamante ne édition bu bu xaw a kéemaane la ndax dafa tombé jamonoy mbas mi alaykum eh, maaleykum salaam wa rahmatulah A2S di leen ziar di leen jox yéen ñëpp kenn ku nekk seen wàccuwaay tey di leen jaajëfal tamit jaajëfal boo leen ko déggee mooy euh, volontaire bi nga xamante ne mooy ñëw tax nañu ñu ñëw fii mooy lan dépannage gratuit ñi association des mécaniciens et mécaniciennes du Sénégal association bi nag nekk na raw na naqari ci ñun tuuti ndax bu ñuy xool daan nañu ëpp nii ni ñu daan ëppee nii mooy genn wàll yëpp fa lañ leen bàyyi naam amuñu leen neex ndax bu doon suñu sago ñoom ñëpp a ñëw fobeeg reebeeg dàq bi yëpp nekk benn mais mbas mi moom moo tax. bon comme ñëw nañu si fajar bi tey ñu fi egsi presque ay 10 heures defe naa 10 heures lañ fi egsi bi ñu fi egsi 10 heures dallu nañ añ nañ ba pare mais fi mu nekk nii il faut tamit ñu génn. mais génn bi yëpp nag du équipe yëpp ñooy génn il faut tamit équipe yi am ñoo xamante dañuy des ñii des nag mooy ku ne xam na ni am na ñaar kii benn oto bu nekk fële boîte dafa war wàcc am na benn oto bu nekk fi tamit boîte dafa war wàcc il faut tamit ñu defar équipe yooyu équipe ñi nar a des fii ak ñi nar a des fële ak ñi nga xamante ne ñooy jalonné pour génn parce que dara réeréwu mbir que ne nit ci biti di dugg di dugg niroo wala suba alayka salaatullahi nekkoon. changé ko ci lii macha allah ci màggal gi lii Serigne Touba dong ko am ku dul Serigne Touba mënu koo am kon boog li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko suñu borom defal merci. yàlla na yàlla barke Serigne Touba bi yàlla na yàlla barke seen liggéey dafa leen xéewal yu bëree bëri. dañ fekk pour tel yéen yéen a ngi dimbali doomu aadama kuy dimbali doomu aadama yi sama leen jullit rek yàlla dina la fay. alaasa la nga defee gisul bi wàll yu boo xam ne yàlla fay na ko kon nag yéen gën a leen a góorgóorlu rek jaamu leen yàlla ci jub sàmm seen liggéey rek dina baax incha rek ndax wax dëgg yàlla yéen ay jàmbaar ngeen ndax ñun dañoo jël si yor apport su ci nag bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla paan nañu ngeen jàppale bu baax a baax a baax a baax ci ndigalu sëñ bi ñu koy fekk suñu doom itam nag si la nga xam ne moom suñu doom la suñu lépp la kon sant nañu gërëm nañu wax dëgg yàlla li ngeen def daal yàlla rek mën a fekk sëñ Touba ndax lii nit yor nay milliards te mënu ko ndax nit mën naa jaaxle lool yorub xaalis te gis ko dimbali kon nag su la yàlla yow dëgg yàlla nga dajee koo xamante ne ñu baax la ñeen daal dañeen di ñaanal di leen yàlla leen yàlla suturaal yàlla leen yàlla doole yal na yàlla jàppale ngeen doon ay mag doon ay kilifa ci dëkk bi ñu ngi koy di ziaral sëñ Murtada Muntaxa mi nga xëy mooy borom mooy borom dëkk bi xam ne ñii daal yal na yàlla suyaat yéen jàppale sant nañu gërëm nañu baax na suñu koor bi ke bu doon yéen tey fi àll bi lay fanaan baaxu yéen defal ngeen defal baax boo xëy te laaju leen dërëm soxlaa leen dërëm itam wax dëgg yàlla dépense dépense rafet sant nañu gërëm nañu la ñuy def sant leen sant leen bu baax a baax liggéey moom te yaay seen Touba rek a tax Touba rek nga koy gis ñu leen di sant bu baax gars yi dañuy paan ñëw fii ngeen defar leen ko gratuitement donc ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant leen wax bon magal di leen di leen ñaanal leen ñaanal di leen wax ne kontaan nañ lool ñu ñu sommes des simples citoyens gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di sant. sama gars yi day wax dëgg yàlla du ñu def du leen di leen sant te di leen ñaanal yàlla ci barke Seexul Xadim yàlla yàggal leen fi te may leen wér ngeen gën a mën a lii ngeen di def ndax yàlla rek a tax ngeen def ak Serigne Touba. wax dëgg yàlla duñ ñëw ngeen defaral ko mu dem ngeen yéen a fi jëkk yéen fi mujj kon moom kenn amul seen pay bu Serigne Touba mi nga xamante ni moom am na fay moom lañ leen di booleel mu fayal ñu leen. yàlla na leen yàlla fay ci barke Seexul Xadim yàlla guddal seen fan wéral seen yaram li nga ciy sàkku yéen a ko xam yàlla na suñu borom defal lu ko kawe ci barke Xadim Rasulullah kontaan nañu trop man du may tourné di julli di yem ci yéen rek ma ma maanaam booba la sama aajo fa yoon dama dama daal di kontaan ndax Tuubaa laa jóge ba ñëw fii di xalaat damaa julli génn rek yem ci yéen wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla taxaw amiin ci barke rasulullah barke xaadimu Mustafa jërë man li ka yaqin fawsa yaasif la yasxadi bika allah atani amanan min al kulli man yatlu wa kulli mubaasi macha allah parce que vraiment amuñu lenn luñ leen di remercier man naa ngi nii dama ñëw ba fii euh, sama déclencheur bi taxaw mais am na loo xamante ni si mbiru mbiru suñu borom la. yàlla def na ko te dara jaru ko euh, lu ñuy déplacé wu lu dul borom bis bi nga xamante ni si amuñu lenn loo xamante ni si lu dul waaye lu see ko fii nga xamante ni si la ñëw ko duñ Touba ñu màggal sëñ euh, Serigne Touba waaw ñun nag yàlla def nañu ñun sax ay tijaan la mais amuñu leen lu dul bis bi. doonte na ñëw lu dul sant si sant si ko soom euh, bende ci bende yi lépp ak xéewal yi yëpp di teew si bis bi rek di remercier ñi nga xamante ne si ñooy dépannage gratuit parce que li am na solo lool waaw man maa ngi ñuy ñëw ba taxaw fii gis ma kenn fay départ par ma laajte ñu ma ñu ngi loolu kon ñu suñu borom yal na yàlla taxaw ko ak mbir ak liggéey yi asalaamaaleykum maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar maa leen di sant bu baax di leen masaw coono ci màggal gi euh, Alima président bi moom sonn na trop macha allah ñuy effectif yëpp di leen masaw coono ñoom ñëpp ñëpp sonn nañu waaw gars yi bi ñëwee ba léegi tooguñu vraiment ñu ngi ñu sonn ci oto yi di liggéey rien que rek pour def seen xewal ñoom ci màggal ndax kenn ku si nekk rek li nga am moom ngay def ci bis sëñ Touba comme ñun yàlla dafa dogal ñu nekk ay mécanicien di dimbale nit ñi ci yoon bi ak ci àll bi bon loolu rek lañ mën a am ci lu ñu mën a def ci màggal bi ñu suñu passe di leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm bon di di ñaan yàlla yàlla may ñuy fekkee ay déwén yu bëri ñu ñëw di màggal di ko def si su comme niñ ko mënee di wax ni nag affaire yi jaar na yoon macha allah liggéey bi am na coono waaye nag comme da ngay def te yàlla rek tax day dem ba dootoo yëg sax coono bi waaw di nuy effectif yëpp yi fi nekk yëpp parce que bon boo xoolee sax effectif yëpp la nekk mais comme comme loo gis rek dafa am gan gu ñu gane si muy muy feebar bon moo tax mun mënuñu indi effectif yëpp moo tax ñu indi lii pour mën a respecter mesures yi di di gën a santaat yàlla suñu borom bon ñëw nañu liggéey ko si jàmm xam nga def nañ ko comme ni ko suñu président bi waxee respecté nañ suñu ay barrières yëpp xam nga yàlla dimbali nañu liggéey nañu ba jour tey bon amuñu benn difficulté ñu ngi sant bu baax ci loolu di ko di di gërëm tamit ñëpp parce que gars yi koo ci gis rek bon liggéey na ba ba sonn vaincre pour bis bi jàpp. waaw kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm ñoom parce que sonn nañ trop xam nga di gërëm ñëpp waaw gërëm gi nag dañ ko toog ci loxo président bi mu sant ñëpp ndax moom kenn du moom ndax jàmbaar dëgg la di ñaan yàlla rek lépp lu ñu def ren rek bu doy nañu def lu ko di sant gars yëpp di leen gërëm di leen wax ni affaire bi nii rek la <clears throat> kenn ku si nekk loo def te yàlla tax rek doo ko rëccu bu doy ne boo seetloo di nga di nga am yaa dina la fay ndax yàlla ay mbiram dara du hasard nga jóge sa kër bàyyi sa sa famille bàyyi sa kër bàyyi sa lépp bàyyi sa atelier nga xam ne da ngay liggéey def sa poos lépp nga muñ ko ñëw rien que pour nga def ñu jëm sëñ Touba te yàlla rek tax loolu du niil loolu acte bu garaaw la acte bu bu baax la ku am volonté boobu ma ñëw def ko rek dinañ la sant gërëm la ñaanal la yàlla yàlla dolli la wax ji bon mu ngi gudd ñu ngi sant ñëpp di leen di leen gërëm di wax bon yàlla leen yàlla fay képp ku fi indi tawat wala képp ku fi indi soxla boo delloo yàlla yàlla rek lépp waaw suñu suñu gars yi ci nekk nga xam ne sportif lañu yàlla leen yàlla def ay roi des arènes ñi nga xam ne ñu ngi ci garage yi yàlla yàlla ubbi leen ñoom ay garage yu mag parce que ñëpp kenn ku si nekk da ngaa tëj sa garage ñëw xam nga rien que rek pour def bon sa volonté def sa participation ci màggal gi ñu ngi ñaan loolu nga def lépp ba ñëw yàlla bu mu niir bu doy ne lépp sotti ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu grand Aziz moom mi nga xam te di wax dëgg yàlla jàmbaar dëggal si ñun moo ñu soutenir moo ñu xelal moo ñu defal lépp ñu nga ñaan yàlla yàlla yàlla may ko yokkute yàlla may ko wér-gu-yaram ba lépp lu mu mën ren rek bu doon mën lu ko raw di ñaanal ñëpp daal si kàttan yàlla man boo ñaa may présenté wu nuyu sama gars yi donc mm-hmm. tumaani ay tibles sponsor la ñoom Demba man nag mënuma wax ci mbooloo quoi mais sant naa gars gërëm leen. sant Aliou mi nga xam mooy suñu président. xam yàlla boole ñu nekk fii comme yàlla def na ñu nekk fii euh, ñu fii daj ay déwén déwén ñu tey depuis man 2016 laa fi dugg. Hmm. ba léegi ñuy ci mosuñu am benn problème. Oh, oh. sincèrement. sant naa Babacar maa nii console la sama gars yëpp maa ngi jógee quoi hmm. Hmm. man mu ne mu wax ci mbooloo ko xam mais nag sant naa bu baax a baax sant Alima yal na ko yàlla sàmm sàmm njabootam ak grand Aziz donc ñu koy sant yàlla gën koo may kattan. waaw ak Cheikh Talib waaw mais ren noo gisee. feebar bi moo tax mu demee nii waaw moo tax mu gën a demee nii quoi mais nag nañ sant yàlla rek parce que buñ sant yàlla rek lépp dina mat quoi parce que xamoo xam mosuñoo faal ci àdduna lii dina mos a am Sénégal. comprendre kon demee nii kon. nañu am nañu sant yàlla sant suñu borom baax a baax. waaw ñu ngi ci yonente ndax ñun ay taalibe lañ ay jullit lañ comprendre kon ñu ñu fi daje ñëpp benn bopp lañ parce que gars yi ñun ñëpp xol yu baax fi nekk ñun ñëpp dañu taxasoo nekk benn bopp waaw salaamaaleykum sama gars yi jaar naa ne bi ñëpp euh, di bëggee ñëpp euh, lenn rek moom si touché quoi parce que comme noonu ren ñun dañu def dépendance gratuite moo ko gën quoi parce ren ak feebar bi mbas bi ñun du ñu dem quoi parce que au commencement suñu réunion yi au commencement métti woon na lool ñu naan ndax dañuy dem du ñu dem far yàlla dogal ñu wàññi effectif yi nag bon bien que métti na trop ñu am koo xamante ne moo nekk suñu ginnaaw du ñu dooleel kenn du moom parce que alima rek lañuy gis moo tax ñuy wax ak yooyu mais tonton Aziz da siy def ñaxam da siy def léppam yaa ngi dégg jàppale ñu ki génnee xaalisam duñu dimbali bien vrai que nekku fi ñu ñoo ko représenté mais fu mu tellu mu ngi naan gars yi foo doon tollu si liggéey bi euh, naka mu ngi métteeg yi gën xam mais ñuy def rek ren métti na trop moo ñu wàññi effectif bi mais liggéey bi kontaan naa si bien vrai que toll ñu nii am na yeneen gars yoo xam ne dañoo dem dépendance si àll bi suñu présidente bi tamit dafa génn ànd ak yeneen équipe yi moo tax bokkul fii nii quoi si cassette bi ñu tëj mais bu ñu doon def présentation bi ëppoon nañu lii mais yàlla na yàlla yokk xéwal yi xëy na lii tam dafa nekk lu gën waaw dafa nekk lu gën moom billaahi parce que am na suñu morom yi bëggoon a ñëw mënuñu ñëw di caagi ne dañ leen xeeb mais feebar bi la quoi kenn mënu si dara situation oblige mais yàlla na yàlla yokk xéwal yi ñu nekkoon fii tamit yàlla yóbbu leen tuwaawal effectif bi gën a bari liggéey bi gën a jàpp parce que xoolal sëñ Touba la ñuy liggéey suñu jógee Seydi la ñuy liggéey suñu fi jógee tamit ñu dem liggéeyal Mariama yàlla nañ koy def ay ati at kenn du manqué nag kenn du manqué bien vrai que naaj bi tàng na lool métti na trop yenn gars yi ngi tëdd fii feebar mais métti na quoi mais yokku ba yëg rek yaa ngeen jëf waaw juum naa nag maa ngi jégalu